bisimilah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man waala mu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ndokkeel suñu bopp d'abord kii jokkoo ak yéen tey ci 7TV euh, mu ngi tudd Sénégal set mu ngi tudd Serigne Aliou Dramé al imam di doom ci pay bi di doom itam ci Cheikh Mouhamadul Bachir Cheikh Alhaji Mouhamad Zeynab. lan lañ mën a jàng ci teen bi nga xamante ni euh, teen maam Assa Diankha la nekkoon également teen Maolana Cheikh Ibrahim ñu gis sax bu gàmmu jotee rek. taalibe day ñëw di ko ziar di naan ndox mi teen bi ban historique nga ñu mën a def. fii nag moom mooy nekk teen Baye en 1937 depuis boobu ba léegi daggut jeexut te boo deltuwaatee te taarix da ngay gis ne sëriñ bi lépp lu mu a bëgg ci yonent bi xemeem ko rek yàlla may na ko ci loolu ndax ni ko gisee nii gannaaw ci jamonoom ak ak ak diir bu gudd dafa dafa dafa dafa deewoon bañ ne sax dootul jébbiwaat waaye xalifaam Cheikh Alhaji Abdullah rahmatullah alayhi moom moo joxoon ndigal góor gu ñuy wax alxaaji Ismaayila la mu beesalaat ko ku xam zam-zam xam ko ak taarix ak Ismaayil yàlla dogal loolu mu ballaat ba mel ni tey waaye nag ci jamono Cheikh Ibrahim waxtu woo xamee ne rek jóge na ci tukki mi makkatal karam lépp lu mu am ci yonent bi ci xeeti zam-zam dana ñëw nañ nañ ko sotti fii ngir barkeloo ko loolu moo dem ba yàlla may tawféex mbootam Cheikh Ibrahim royaat ci ci bëgg gi mu bëgg yonent bi nga xam ne lépp looy gis ne doomu aadama mi ko itteewoo ci sàkku euh, yëkkatiku yàlla ngi leen koy saafaraal ñoom ñi nga xam ne ñoo dajee fii tey di ay taalibe jugee nañ nag ci réew yu bëri yu fasantikoo di ñii jugee nañ Nigéria ñii jugee Ghana ñii Bénin ñii Tchad ñii Allemagne ñii Belgique ñii Chine ñii Libéria ñii Cotonou ñii Malaysia ñii Tagam ñii ba Jusil Xamar ba Mauritanie ba Royaume-Uni taalibe yooyu jóge nañ fii ñëw te ñëw gi ñu ñëw fii nag. feddali seen kóllëre ak sëriñ bi beesalaat seen taalibe ni ngi leen di gisee ni nag li ma neex ci seen jikko mooy teggin gi ñu am li ngi leen gis mën nañoo tiim sax euh, ndab li maanaam bërigo bi du ñàkkee teggin te bu waxtu wuñ jubee baram bi danañ summi seen mbaxana summi seen dàll ngir yi sàkku ci barke ndax loolu képp koo xamee ne mi ngi koy def rek yaakaaral nañ la wallazina jaaxadu fii naa la nahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma al yëkkati ku yooyu nga xam ne lu ne la mën a jural doomu aadama yàllaa koy maye te ñoom dajee gi ñu dajee fii nag yàllaa leen defal loolu ni nga gisee nag ah, ndox la boo xam ne xóotaay bi ñu ngi toll ci juróom-ñeenti mètre te ndox mi du dagg du jeex fi ne boo ŋàccee ba mu sori nii boo bàyyee cinq minutes mu yéegaatal boppam te yaakaar naa boo toppee baatin bi ak mbóot mi da nga xam ne sëriñ bi prép yàlla xamaloon na ko mu préparé lii fi ne robinet bi bu tëjee nii tey ci seen ci Medina Baye amul fu nit mën a jaar pour jëlee ndox lu mooy ci ay citerne waaye su mooyee loolu fii rek moo mën a maye ndox te loolu mbootam Cheikh Ibrahim la depuis 1937 ba léegi mu fi te yàlla nga ci def ay xéewal da ci def ay barke du dagg du jeex te bëriwul nag juróom-ñeenti mètre rek kon te loolu yàlla ngi saafara ay jàngoro yoo xam ne ñoom seen yéene yi ñuy am di ko ci yéene moo tax yàlla di ko nangu ndax taalibe bu dëggoo fañ tibbalee sëriñam rek lañ koy tibbalee wallazina amanu wa tabaatum zurriyatum bi imanihim al axnaa bihim zurriyatihim wa ma alatnaahu min amalihim min shay loolu mooy mbootam taalibe kon ñi ngi ndokkeel taalibe yëpp di leen wax marhaban di ñaan yàlla lépp luñ fi ñaan yàlla nangu ko yàlla nangul leen seen gàmm ñi nga xam ne ñoo waroon a jógee ci bitim réew ñëw tam am gàllankoor lépp lu leen gàllankoor dégg boobu yàlla te jam sànni ko ci géej bu àggee ci géej moo waram mu bañ a lor ñooñ géej te loolu itam mbootam Cheikh Ibrahim la kon daal ñu ngi wax euh, alhamdulilah di ñaan yàlla ñu teewee ko ay déwéni déwén. coono bu métti bu facilité boo xamante ni doo xam sax noo koy comprendre mais nekk na mbir moo xam ne boo ko xasee ba maîtriser rek danga nga ko souligner ci ci ci ci point yoo xam ne da nga fexe ba kenn du mer ndax xeet yi fi dajee moo tax. te dëkkante wuñ mais yàlla wërsëgal ñu am ay langue yu bëri yuñ ci dégg yuñ mën a composer ak ñoom. ni ki mel ni anglais ak arabe ni ki mel ni ak ah, seen làkk bi ñoom awsa ak yoroba ñu mën ak bambara ñu mën a composer ak ñoom ba seen soxla faju duñ gëdd kenn ndax yàlla njëkk tere pour ñu gëdd ak jullit puulu naa sa usnan kon nag gëdd googu ñoom teggin rek lañuy la ñuy defee ak ñoom ñoom nag boo leen xasee ba jox ndox seen yéene mooy dañuy làmbu seen poos joxe ko xaddiyee bàyyi ndax ku xam taalibe yàgg na ci xidma te loolu moom mooy buntab ci xidma fi mu ne nii nag fi mu ne nii ay butéel lañ koy def yoo xam ne Euh, butéel yi dañ koy dañ koy jël ñoom ñoo koy indiwaale ñu defal leen ci ndox ñi ngi ñaan yàlla itam affaire bi gën a yëkkatiku ba nga xam ne butéel yi dañ koy importé di ko sol di ko teg nga xam ne dañuy ñëw rek dem. yëkkatiku bi ci am mooy euh, robine bi bii nga gis nii tey ay taalibe yu dëkk ci xadara bi ñoom ñoo ko defar di di di benn groupe boo xam ne ñoo ko dajale defar ko mu méngoog jamono fi mu ne da ngay ubbi robinet bi rek mu dem. amatul bëriwul li ngay jukki baag bi te loolu xéewal la boo xam ne ku xam Cheikh Ibrahim da nga xam ne mbiram mën naa dooleekoo ci fànn bu nekk te li ci gën a fës mooy alhamdulilah taalib yëpp ñëw nañ ci jàmm te ñu ngi ñaan yàlla ñu dellu ci jàmm mbooloo mi bëri na lool alhamdulilah jërë ngeen jëf